jàmm dong moo ciy ñëw. mais euh, euh, carte gi jaxasoo na de. lu jaxase carte bi. ah parce que boobu dafa doon appel ba daanoon que deux mois ak deux cent millions. loolu bu ñu defee bu ñu defaatee appel est ce que euh, bu ñu ko yow di nga suivre actualité. waaw. nit ñi fàq ñëw ne mun mën dañ fay deux cent millions yu fekk na moom. ci boppam mais deux cent moom sax dafa wax ni d' accordul d' abord ci atte boobu ñu ko atte parce que ay avocat ba léegi waxuñu. yow noo gisee àtte bi yow di nga ànd ak say avocat waxuñu ñu teg la daan boobu. Ah. non man euh, damay analyser rek. waaw ci li ngay analyser est-ce que analyse boobu jaadu na. man ma dañuy weccoo xalaat dootul kii bu ragal dara. mais su ma gis-gis wax naa la ko nee naa la kay man pour sonk la. Ah. suñ ma doon jàpp ndax Sonko ak ñu dem ci. kon fi affaire pro Sonko bu baax laa la wax. bu baax maa ngi koy gërëm di ko sant moom Sonko yal na ko yàlla jox nguur yi xana dëgër de man ci man lu fekk baax bok ah bo voilà man dawuma ci lenn ya ngi dégg dawuma ci lenn ah. pour sonko nga sonko nga andal fa nga far bidus dus la far hmm. boo ne pour sonko la kay jeexal na carte ya ngi dégg li ci dess ça dépend ci kay boyel ni olof waxe ku mu ndex pour sonko la ku mu naqari pour sonko la voilà jërëjëf parce que nit ki kat doo feebar mu ñëw seet si la sa biir kër nga di farak keneen il l'a fait te lam ma seet si woon loolu la en fait waaw man maa feebar mu jóg jël ak tànkam ndax li ñu seq di woowante goro mu daal di ñëw seet ma où est problème